juróom benn fukk ak juróom fajkat bi
asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñëpp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ni ko ñuy ëpp ci yéen xame fi nu toll ci sunu tukki ci mbind mu sell mi nu ngi gëstu ci linjiil maanaam ci téere bu sell bi nettali xabaar bu baax ci mbirum almasi bi gane si àddina ngir goreel doomi aadama ci kilifteefu seytaane ci émission bi weesu jàngoon nanu ni yeesu almasi bi tàmbale woon wër dëkk ya di jàngal mbooloo ya tey faj jàngoro yépp ak wéradi yépp ca nit ña ba tax turam siiw ci biir réew mépp tey nag danu bëgg a wéy ci nettalib yeesu almasi bi ba gis ni jàngaleem ak jëfam wuute lool ak ñépp ñi ko jiitu yeesu amul woon jabar mbaa kër mbaa alal lenn rekk am solo ci moom mooy def coobarey ki ko yónni te àggal liggéey bi mu ko sant ci linjilu mark saar benn mbind mi nee na yeesu ak i taalibeem dem dëkku kapernawum ca bésu nooflaay ba nag yeesu daldi dugg ci jàngu bi di leen jàngal te ñu waaru ci njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul noonu am ca jàngu ba nit ku rab jàpp mu daldi yuuxu naan yow yeesum nasaret loo nuy fexeel ndax danga ñëw ngir alak nu xam naa la yaa di aji sell ji jóge ci yàlla waaye yeesu gëdd ko naan noppil te génn ci moom noonu rab wa daldi sayloo nit ki te génn ci moom ak yuuxu gu rëy bi loolu amee ñépp waaru bay laajte naan kii mooy kan mi njàngale lu bees la te ànd ak sañ-sañ day sant rab yi sax ñu di ko déggal noonu turam daldi siiw ci diiwaanu galile gépp waaw ci lu wóor njàngalem yeesu wuute woon na lool ak njàngalem xutbakat ya ñépp ñi nekkoon ca jàngu ba bés boobu di déglu yeesu waaru nañu lool ci ay waxam ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul xam ngeen xutbakat yi ñooy ñi waroon a firi kàdduy tawret ak saboor ak téere yonent yi waaye lu ëpp ci ñoom mënuñu faram-fànce bu jub mbind yonent yi ndaxte xamuñu leen dëgg-dëgg xamoon nañu bu baax seeni faratay diine ak seeni aaday maam waaye xamuñu kàddug yàlla aji sax ji dañu daan teral yàlla ci seen gémmiñ waaye soppuñu woon kàddoom naka noonu bi yeesu mi mësula jàng ci daaray xutbakat yooyu duggee ci seen jàngu tàmbale faramfànce mbindi yonent yi ak sañ-sañ ak leer xutbakat yi daldi rus lool te mënuñu weddi kéemaan gi mu def ndaxte ñépp gis nañu ni yeesu faje nit ku rab jàpp ko dàq rab yi te it ñépp ñi nekk ci jàngu bi waaru lool bay laajante naan kii mooy kan njàngale mu bees mi ànd ak sañ-sañ fu mu ko jële day sant rab yi sax ñu di ko déggal lu mel ni lii mësunu koo gis kenn mësula jàngale ni nit ki kenn mësula jëfe ni moom waaw li ko dale bés booba aadama bàkkaare ba bés ba yeesu almasi bi tàmbalee def ay kéemaan nit ñi mësuñu woon a gis kenn ku ëpp doole seytaane ak i malakam waaye léegi gisoon nañu ki mën a wax benn baat rekk te seytaane ak i rabam daw almasi bi jóge asamaan rekk mën a def loolu ndax dégg ngeen li nit ku ànd ak rab ka waxoon yeesu dafa yuuxu naan yow yeesum nasaret loo nuy fexeel ndax danga ñëw ngir alag nu xam naa la yaa di aji sell ji jóge ci yàlla nu gis ci wax yooyu ne rab yi xam nañu bu baax fan la yeesu jóge ak ku mu doon lu ëpp ci doomi aadama ràññeewuñu ki yeesu doon waaye seytaane ak i malaakaam dañu ko ragal lool ndaxte xam nañu xel ne yeesu mooy kàddu gi jóge ci yàlla te am na sañ-sañ ngir sànni leen ci safara su dul fay mukk looloo tax ñu ragal turu yeesu bay lox léegi nag nanu jëm kanam ci saar wi mbind mi nee na bi nga xamee ne yeesu ak i taalibeem génn nañu ci jàngu bi ñu ànd ak saak ak yowaana dem ca kër simon pierre ak andré fekk gorob simon pierre bu jigéen tëdd wopp ak yaram wu tàng ñu daldi ko yëgal yeesu mu ñëw nag ci moom jàpp loxoom yëkkati ko noonu tàngoor wi daldi wàcc te soxna si di leen toppatoo ca ngoon sa nag bi jant bi sowe ñu indil yeesu ñi wopp ñépp ak ñi rab jàpp ñépp ba dëkk bi bépp dajaloo ci bunt kër gi noonu mu wéral ñu bare ñu wopp ak ay jàngoro yu wuute te dàq ay rab yu bare waaye mu tere rab yi ñu wax dara ndaxte xam nañu ko ca njël laata bët di set yeesu jóg dem ca bërëb bu wéet di fa ñaan yàlla simon nag ak ñi ànd ak moom di ko seet fu nekk bi ñu ko gisee ñu ne ko ñépp ngi lay seet waaye yeesu tontu leen nanu dem feneen ci dëkk yi nu wër ma waare fa itam ndaxte moo ma tax a génn noonu mu wër ci diwaani galile gépp di waare ci seeni jàngu tey dàq rab yi am bés ku gaana ñëw ci moom sukk ñaan ko ne soo ko bëggee mën nga ma wéral yeesu yërëm ka tàllal loxoom laal ko naan bëgg naa ko wéral ca saasa ngaanaam daldi deñ mu wér noonu la yeesu faje jàngoro yépp ak wéradi yépp di yërëm doomu aadama yi ndaxte dañoo sonn ba ne yogg mel ni xar yu amul sàmm waaye am na leneen lu waral kéemaan yu bare te rëy yi yeesu doon def yeesu fajoon na jàngoro yépp di dàq rab yi ngir firndeel ne mooy almasi bi yàlla dige woon bu yàgg jaare la ko ci yonentam yi ci misaal jàngoo nanu ba noppi ne yonent yàlla esayi ay téeméeri at laata yeesu di juddu sax bindoon na ne bu almasi bi ñëwee gumba yi dinañu gis tëx yi di dégg lafañ yi di tëbantu ni kéwal te làmmiñu lu ne tell ak mbég ci wax jooju nag yonent yàlla esayi doon na yëgle ni almasi bi naroon na defe ay kéemaan yu kenn mësula def jàngoon nanu ba noppi ni yàlla maye woon yonent yàlla muusa ak yonent yàlla ilias ngir ñu def ay kéemaan yu rëy waaye kéemaan yi ñaari yonent yooyu defoon barewuñu bu nu leen tëkkale kéemaan yi almasi bi defoon te it muusa ak ilias amuñu woon benn doole ci seen bopp ngir def ay kéemaan waaye yeesu almasi bi feesoon na dell ak kàttanug yàlla ndaxte moom ci boppam moo doon kàttanu yàlla nanu jëm kanam léegi ci linjilu mark sar ñaar bind mi nee na bi ay fan weesoo yeesu dellu si dëkku kapernawum mu siiw ne mu ngi ci kër gi noonu nit ñu bare dajaloo fa ba kenn amatul foo taxaw du ci buntu kër gi sax te yeesu di leen yëgal kàddu gi noonu am ñu ko indil ku yaramam wépp làggi ñeenti nit jàppoo ko waaye mënuñu ko jege ndax mbooloo ma kon ñu daldi teggi kaw kër ga di bëtt fa tiim béréb ba yeesu nekk daldi yoor basan ga làggi ga tëdd bi yeesu gisee seen ngëm mu ne làggi ba sama waay baal nañu la say baakaar fekk ay xutbakat toog fa ñu di werante ci seen xel naan kii kan la ba sañ a wax lii mu ngi sosal yàlla ana ku mën a baale baakaar yi ku dul yàlla dong waaye yeesu yëg ci xelam li ñuy werante ci seen xel ne leen lu tax ngeen di werante nii ci seen xel lan moo gën a yomb ma wax ku làgg ki baal nañu la say baakaar wala ma wax ko jógal jël sa basang tey dox waaye xam leen ne doomu nit ki di almasi bi am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi ci kaw loolu mu ne làggi ba maa ngi la koy sant jógal jël sa basang te nga ñibbi ca saasa mu jël basangam te génn fa kanam ñépp noonu ñépp waaru di màggal yàlla naan lu mel ni lii mësunu koo gis amin kon ci nettali bi gis nanu ne kàttanug yeesu yemul woon rekk ci faj yaramu nit waaye itam am na kàttan ngir faj xolu nit yeesu miy fajkat bu mag bi xamoon na ne jafe-jafe bu gën a metti bi làgg bi am du woon tànkam yu ñàkk doole waaye moo doon bàkkaar bi nekk ci biir xolam moo taxoon yeesu jëkk ko wax ne sama waay baal nañu la say bàkkaar waaye lan la xutbakat yi doon xalaat bi yeesu waxee loolu ñu ngi doon naan ci seen biir yeesoo ngi sosal yàlla kenn mënu la baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong am na luy dëgg ak lu dul dëgg ci seeni xalaat yooyu ci lu wóor kenn mënu la baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong waaye bi xutbakat yi xalaat ne yeesu dafay sosal yàlla juumoon nañu ndaxte li ñu xamul woon mooy yeesu moo di ramukat bi yàlla wàcce ngir jubale bàkkaarkat yi ak yàlla yeesu mooy kàdduk yàlla te noonu bi yeesu waxee ne baal nañu la say bàkkaar yàlla moom ci boppam moo doon wax ne baal nañu la say bàkkaar borom bi yeesu mooy baatub yàlla te du loolu rekk waaye yeesu moo di it ki juddu ngir joxe bakkanam ni sarax suy dindi bàkkaar ni baay di joxe doomam sañ-sañ ngir mu liggéeyal ko te di ko waxal noonu la yàlla joxe sañ-sañ yeesu ngir muy baale bàkkaar yi mbaalug bàkkaar amul ci keneen waaye xutbakat ya gëmuñu woon loolu léegi jot gi nu dese barewul waaye bala nuy tàggoog yéen nanu jéemaat jàng tuuti ci aaya yi ci topp mbind mi nee na bi yeesu jóge kër ga mu doon faje ku làgg ka mu gis nit ku tudd macca toog ca juuti ba yeesu ne ko kaay topp ma noonu macca jóg daldi ko topp bi loolu amee yeesu ak i taalibeem di lekk ci kër macca fekk ay juutikat ak ay borom bàkkaar yu bare di lekkandoo ak ñoom ndaxte ñu bari ci ñoom a ko toppoon waaye xutbakat yi bokk ci farisiyen yi bi ñu gisee ne dafa bokk lekk ak ay juutikat ak ay borom bàkkaar ñu daldi laaj taalibe yi lu tax muy lekkandoo ak ay juutikat ak ay borom bàkkaar noonu yeesu dégg ko mu ne leen ñi wér soxlawuñu fajkat ñi wéradi ñoo ko soxla ñëwuma woo ñi jub waaye bàkkaarkat yi laay woo ci wax yooyu nag yeesu di fajkat bu mag bi dafa bëggoon won xutbakat yi ni ñu wéradee fa kanam yàlla ndax seeni bàkkaar waaye xutbakat ya ràññeewuñu seen bàkkaar ñu ngi doon tuumaal yeesu sax ci li mu doon lekkandoo ak ay juutikat ak ay borom bàkkaar wante gane si bàkkaarkat yi te faj leen moo tax almasi bi yeesu juddu yeesu ñëw na ci àddina ngir faj doom aadama yi ci seen feebar bi gën a bon maanaam ci bàkkaar yow miy déglu tey ndax ràññee nga ne judduwaale nga jàngoro ju metti ji ñuy wax bàkkaar te bàkkaar bi nekk ci yow a tax nga war a dee jaar ci àtte yàlla aji sax ji waaye cant ñeel na yàlla ndaxte am na ku la mën a faj ci bàkkaar bi nekk ci sa biir xol ndax xam nga kooku ku mu doon waaw moo di yeesu almasi bi moom moo di ki amul woon bàkkaar te ganaa si àddina ngir musal doomi aadama ci seeni bàkkaar wante bala borom bi yeesu mën a faj sa xol ci bàkkaar faaw nga jëkk a gis sa wéradi fa kanamam yeesu ñëwalul ñi foog ne jub nañu waaye ñi xam ne ay bàkkaarkat lañu looloo taxoon mu wax xutbakat ya naan ñi wér soxlawuñu fajkat ñi wéradi ñoo ko soxla ñëwuma ngir ñi jub waaye bàkkaarkat yi lay woo amin kon nag mbokk yi fii lañu wara yem tey ci émission bi di ñëw ci coobare yàlla dinanu wéy ci linjiil ngir dégg wax yu neex te xóot yi génne woon ci gémmiñu yeesu di fajkatu bàkkaarkat yi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yeesu wax xutbakat yépp bi mu naan ñi wér soxlawuñu fajkat ñi wéradi ñoo ko soxla ñëwuma ngir woo ñi jub waaye bàkkaarkat yi lay woo